alhamdulilah rabbil alamin allahuma ishani taxta janaahi ismika al azimi al azam li dafxi sadaidi waj'alni al arda maida wa kullu man alayha rafiqan wa muhibban wa mushaqiran wa mutihan bi barakati fatihatil kitab wa hurufiha doonu loo xam ne nag euh, bëgg a wane suñ bopp moo tax ñu feeñ dafa am mbir yoo xam ne tey soo ko bëggee jox doomu aadama yi faaw nga feeñ rek pour wax leen lii lan la ndax dañuy soxla woo xam kan mooy defar li waaw waaye bu doonte ni mbirum feeñ rek wala mbirum siiw rek yàlla mën naa dogal liñ ci bëgg ñi ngi ko ci am te kenn gisuñu waaye nag dafay mbir dafay toll foo xam ni nit ki même suy jënd dara di ko jëfandikoo bëgg naa xam ni fan lay jógee ak kan moo koy defar dañ kumpa boobu nag moo tax ñu feeñ ngir leeralal leen yooyu bu dee ci wàllu gëstu boobu euh, lu jëm ci wàllu saabu yi dafa am ay niveau am na niveau un bu dee niveau un bi ouverture et protection la tudd moom daf lay ubbi ba pare aar la suñuy wax nag ci ñi xóot dégg-dégg kaaraange yàlla rek moo ko yor ubbeeku yàlla rek moo ko yor waaye nag ni yàlla binde doomu aadama am na luy taxaw ci kanamam di ko gàllankoor loo xam ne yoonu yàlla néew ci doomu aadama bi la noonu lay doon wala moroomam ngir loola nag mu mucc ci il faut mu def ay effort loolu moo tax ñu indi li nga xam ni mi ngi jóge ci ay xeeti garab yi ñu yàlla wërsëgalal ndax garab gu mën doon jëriñul lekk rek garab gu mën a doon jëriñul ker rek jëriñu garab gu mën a doon jëriñul mat rek waaw ah, garab dafa am yu bari ci yàlla dëxëñ yoo xam ni dafa am saayir am baatin lii nag ci mbirum saabu yi ñu ngi ko jëlee ci ay gàncax yi nga xam ni moo am ci suñuy réew ak yeneen yoo xam ne sax amul ci suñu réew mi ngi ci yeneen réew yu ñu jige ndax dëkk bu ne dafa am ay garabam oh, ouverture et protection nag ubbeeku rek lay def moom ak kaaraange buñ ne ubbeeku nag lépp lu jëm ci lu doomu aadama bi di wut kii wut borom kër te amu ko mi ngi ci ki wut soxna te amu ko mi ngi ci kii wut liggéey te amu ko mi ngi ci ki nga xam dafay wut euh, tamit am koom ak lu mën a doon te amu ko mi ngi ci ki bëgg a passé examen wala yeneen ak yeneen mi ngi ci ki nga xam ne tamit euh, protection lu jëm ci wàllu cat mi ngi ci lu jëm ci gàllankoor boo xam ne da jóg rek di dem nga xam ne kenn teguloo ko dafa nekk ci mbedd mi di xaar ku mu topp wala ku mu yàqal wala ku mu gàllankoor mi ngi ci ndax boo muccee rek yàlla musal la ci lépp waaw nag li nga xam ne mooy ouverture et mooy niveau un bi waaw niveau deux boobu muy miracle matière bi ñu koy liggéeyee dafay soppi ay mbir même moom bu fekkonte ne nii da fekk euh, ñu liggéey ko ba pare mm-hmm. nga jël ko jëfandikoo ko noonu te àndut ak saabu faaw si ay mbir dana soppeeku saabu yi nag li tax ma def ko noonu jaami yàlla yi nga xam ni li ëpp waa bitim réew yi mm-hmm. ñoo ma ci gën a puus mm-hmm. danaa yónnee nit dara mu téye ko juróom benn weer woo ma ni ma ah li nga ma joxoon ba léegi mënuma ko jëfandikoo ndax fi ma dëkk wala nangam nga xam ne dañuy préféré nga leen wutal yeneen i programme yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo waaye nag su fekkente ne mbir mii nga xam ne moo nekk saabu bi pour nga jëfandikoo ko mun nga koo teg sa douche doo ko fàtte sangoo ko da lay setal musal la ci lépp loo xam ne dafa nekk ci ay taas sa yaram ba pare boo ko sangoon la taxoon nga jënd ko muy mbirum baatin nga fekk ko ci waaw surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di yëngatu ci liggéey jafe leen lool wala ñuy jaay pour ñu jaral jafe leen lool wala ñu nekk fa tamit dek ay jigéen yoo xam ne dañoo demoon di daani seen doole bëggaale fa borom kër te mu jafe leen wala ay kayit mu jafe leen dana pour li nga xam ni moom la ñuy toppatoo yàlla yombal ko niveau 2 bi moom ci loolu lay dox euh, niveau 3 bi ouverture totale la tudd loolu daf lay ubbi ci lépp loo man di yëngutu ki xam dafay def basket kii def football ki xam dafay jaay ci marché bi moodu moodu bi tukki ki nga xam dafa bëgg mbirum këyit ki nga dafa bëgg borom kër mu jafe ki nga xam dafa bëgg soxna mu jafe ko ki nga xam ne dafay wut liggéey mu jafe ko moom dalay jox sens daal ci lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngutu ñi mu gën a yitteel dëgg nag mooy businessman yi nga xam ne lu ñu gis dugal ci seen loxo mooy ouverture totale waaw loolu moom moo ko tax a jog maanaam dalay ubbi ci wet gu soo ko dee jëfandikoo yow ci sa bopp danga nga sentir ni lii ngay jëfandikoo te li ci gën a yéeme mooy doom bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo matière bi ñu ko liggéeyee matière boobu tey soo amoon doom jullee suñ ko joxee mu naan ko da nga ko yërëm léegi ci toogaay bi bàyyil li ngay def ak toogal ak yooyu yëpp yàlla da ko ci musal waaw loolu it dinañ ci ñëw moom itam beral ko yëfi boppam pour ñi nga xam ne dañuy am doom bëgg koo yar mu tëleen wala yu mel noonu ñu jox ko loolu Sëriñ Tuubaa doon wax ci xasida Mawaahibu nga xam ne dafay bëgg nit ki jub yaru te du jooy loolu baatin moo koy def waaw ba tey baatin bi may wax rek dama bëgg ñu jële ko ci baatin indi ko ci saayir nga xam ne doomu dana ko mën a làmb xam ne lii nangam la mu jël ko jëfandikoo ko aajoom faju waaw niveau trois bi ouverture mm-hmm. total la tudd mm-hmm. daf lay ubbi ci bépp bunt boo xam ne euh, am nga ci yéene pour dëgmal ko mm-hmm. yàlla ubbi la ci da nga koy jëfandikoo rek di gis mbir yoo xam ne jafewoon na la muy yomb gis mbir yoo xam ne yaa ngi ko daan bëgg di ko lijjanti muy të muy ñëw ba ci say loxo waaw moom ouverture totale bi moom loolu mooy mbiram xam-xam li mag ñi di wax soriwul dafa làqu moo tax boo xeebee nit wala nga xeeb xam-xam rek doo am xam-xam il faut nga boo xeebee doomu aadama bala nga xeeb xam-xam rek doo am xam-xam ñun xam-xam danañ ko jëlee ba ci suñuy njaboot mm-hmm. dañ dañuy déglu duñ romb dara mm-hmm. dañ gis dara romb ko xool ko déglu dara yit xam ne lii euh, buñ ko jëfandikoo mën naa am njëriñ te it ñi nga xam ni dañuy jëfandikoo saabu bu fekkee saabu bi nga yor du gaam boo xam dalay jëriñ dara bu la neexee mën nga koo bàyyi ndax soo xeesee du la ñuulal mm-hmm. soo ñuulee tamit du la xeesal te it xeet yi ne ci yaram mu mel ni ay eh, xam wala ay bouton wala yu mel noonu wala yaram buy xesan yooyu yëpp moom dara ciy dimbali te tërëwul nag mu am njariñul baatin loo xam ni loolu mënoo koo jënd day xëpp comme saabu yi te boo ci sangoo da ngay set te lépp loo xam ne moo fanaan ci yaram loo xam ne cat la boo xëyee sangoo ko mu dañ loo yendoo ci cat bu dee boo ko sangoo doo ko fanaanoo loolu moom luñ garanti la parce que moom matière biñ ñu ko liggéeyee ñoo ànd waaw matière bi tamit biñ ko liggéeyee dañ cee jaxasoog ay nit yoo xam ni Euh, lii seen liggéey dëgg-dëgg mooy mbirum saabu ñoom loolu mooy seen liggéey kilifa yu bari ci réew mi ñoo leen koy jaay saabu yi jigéen ñi di sangoo di ko jëfandikoo seen yaram muy mel noonu ñooñu lañ ci waxtaanal ñu teg ñu ci aw yoon xamal ñu ni saabu bii qualité sàngam la produit bii qualité sàngam la ñu doog a ñun wut suñ garab def ko ci biir waaw mélangé ko def ko nag ci ay pot yu mucc ayib nga xam ni pot bi rek mën a def yow 3 mois wala 4 mois des fois nit di euh, ndax prix bi mën naa gën a yomb ma ne ko nag ni ngay demee ci sëriñ yë yëkkati ñaar fukki junni jox ko wala fanweer wala ñeent fukki junni te lam lay jox du la jariñ nga mën a am lii sa biir kër te doo gis sax ab sëriñ kenn du xam foo ko jëlee nga jëfandikoo ko sa biir douche te mu lay jariñ la lay doon jariñ moo ko gën dama bëgg nit ñi mucc ci ay nax waaw seen bopp yi ubbeeku man nag ñooñu ñoo ma tax a jóg mais nit koo xam ni xañ na xel mi dafa jaxasoo muy wër ñu di ko nax kooku ma taxumaa jóg nit ki nga xam ne ab intellectuel la nga xam ne boppam ubbeeku na xam na ni bi yitte ni te bëggul ko ko nax kooku lañ bëgg a jëflanteel waaw te ñooñu it ñoo koy soxla ñoo ko fiy jël si bëgg naa mu gën a yaatu bañ gën a xam njariñ li te bu boobaa danañ gën a xam ni njariñam yemul ci sangooko rek waaw waaye lu mel ni mbirum garab gàncax boobu mën nga ko jël jëfandikoo ko ci fu neex am ci ni nga ci bëgg te doo am daani yàlla doo am benn jafe-jafe comme yii ma liggéey nii dañ koy jële fii di ko def ci ay colis di ko yóbbu bitim réew CP yi dañ koy jël di ko yóbbu duñ ci am benn problème te it bu fekkonte ne na nga ko yemale ci bind ak maas tey boo ko bëggoon dugal Dubaï problème lay doon hmm. boo ko bëggoon dugal Arabie Saoudite problème lay doon jeex na léegi nag man moo taxoon ma bëggoon toujours ñu jële ko ci baatin rek indi ko ci saayir te lépp loo xam ne ayib alxuraan daf koy faj hmm. yàlla bind na garab bu koy faj lépp lu ayib alxuraan di faj rek hmm. yàlla indi na garab buy faj loola ba indi laneen loo xam ne sax ba léegi nit ñi turwee guñ ko ci alxuraan parce que alxuraan dëgg dëgg dëgg alxuraan soo koy jàng dafay mel ne xol moo ko tax jóg faj xol maanaam defar doomu aadama ba mu nekk nit mm-hmm. xam kan mooy yàlla am yërmande ci morom mi jaam yàlla mi mm-hmm. moytu lu bon di def lu baax su ko defee la ca des na nga dem gëstu ko ci wàllu garab mm-hmm. ak wàllu suuf ak wàllu ndox ak wàllu ngelaw yooyu mooy yi nga xam ne su ko doomu aadama peegee mën na faj ay aajo ci loo xam ne da koy mën a teg ci bërëb nit jël ko man bëgguma rek nit koo xam ne dafay sol benn grand boobu bu ta taxaw fële nga dem jox ko téeméeri junni un million bu subaa nga koy woo doo ko di ko seet doo ko gis li ma bëggoon xam-xam àgg foo xam ni lu waay yittewoo am na béréb boo xam boo fa demee jënd ko jëfandikoo ko sa aajo faju kenn du la xamal dara ndax am na ay yoo xam ne toll nañ foo xam ne sax bëgguñoo génn di dem kenn di leen gis waaye tey su fekkente ne xam nañ loo xam ne béréb sàngam dañuy yónni ku leen ko jëndal rek ñu jëfandikoo ko seen aajo faju kenn du leen xamal dara kon nag xam naa ñun ñoo ngi tàggoo foofu rek euh, wàcce suñu kàddu di xam ne ni njariñ la loo xam ne dañ ko indil doomu aadama yëpp am na yeneen yoo xam ne dañoo mënul génneendoo yëpp waaye lu ñu gën a avancé rek chaque jour ñu indil leen lu bees loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo fi may woote daal mooy foofu dama bëgg ñu am suñu pharmacie bopp boo xam ne koo xam ne lii la gëm bëgg cee faju te wërsëgam bëriwul noonu mu mën a dem faju ci jàmm ak salaam te du am benn problème parce que ñëpp d'accord nañ ni euh, liggéey rek mooy tax nit ak fenn fi waaw te su xam-xam bu leer la boo xam ne suñuy maam ñoo ko fi bàyyi woon mën nañ koo jëfandikoo garder ko ba du réer te nit ñi mën koo jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullah